C'est mon euh, président du conseil d'administration de l'ONG PDF. PDF un partenariat pour le développement de l'enfance et de la famille. voilà nous avons un projet am ngeen projet bu de bu tudd Read at Home maanaam jàngal sa doom ci biir kër gi. nu mu leen projet est dañ koy mettre en œuvre en consortium avec euh, Thiaye Fan Sénégal ñun mettre en œuvre euh, projet bi dans la région de Diourbel ñun partenariat ya, pour le développement de l'enfance et de la famille ñu gënoon ko xam ci fédération du Baol euh, ONG bi nga xam ne nii la yàlla dogal ñu ko moo taxu ci tey amaat beneen projet boo xam ne daf demaat ci ndaw yi xale yi ndaw yi nga xam ne ba am ñetti at wala ba am at gis nañ ne jamono ji dafa tollu fo xam ne pour ñu jàng sax problème la wala pour ñu mëna lire problème la projet bobu ñu ko amé ci PDH. ñu indi ko pour juróom benni weer waaye jàpp na ne bu juróom benni weer yu weex jeexee yàlla mën na def ne buñ ko évaluer bu baaxee mën naa demaat beneen at loolu nag li nga xam ne que ni moom lañ ci jublu liñ ci liggéey mooy xale yooyu dañ leen jox saak saak boo xam ne que ni lu mu gàtt gàtt dana am ay juróom-ñetti téere yoo xam ne mi ngi ci biir yoo xam ne que ay liifantu lay doon dañu mën a jàng mën a liir mën a def lépp loolu nag ñun dañu tànn rek ci région bi ñaar fukki commune

Euh, lance lancement bi tey jii def nañ ko avec monsieur le gouverneur maintenant liggéey bi ko nit ci ki nga xam moom mooy euh, tund yooyu nga ne moom la tudd muy bu Mbàkke muy bu Diourbel muy bu bu foofu daal moom mooy li nga xam léegi PDF moo doon euh, fédération du Barawal lu waral changement tur boobu. xam nga fédération du Baol ñëpp dañu am tendance duñ xam lan la tekki sa wax dëgg yàlla ñun sax daf ñu doon déranger mais fédération du Baol. C'est la fédération des associations communautaires du Bawol mais dans le le lépp toutes les ko fédération du Bawol il y a une fédération paysan yi la wala une Fédération yàgg fédération la fédération leneen la pour nous, dem ci li développement sur les familles et les enfants vulnérables les familles diminuées exclues loolu dañ ne nan changer Donc ça, c'est ñu partenariat parce que le partenariat c'est un partenariat. deuxièmement fédération di Bawol Bawol la yem léegi na ñun ñi ngi liggéey ci ñi ngi liggéey Kaffrine ñi ngi liggéey Kaolack ñi ngi liggéey Fatick ñi ngi fas yéene liggéey Louga ñi ngi liggéey Diourbel fii ci boo ne Bawol boo demee Kaffrine da nga am problème léegi on est national donc suñ siège social Bawol la nekk boo lañ soq ko am ñoo xam ne que ni seen siège social ma nga nekk Fongolimbi mais ñi nga ñi nga Dakar kenn du xam Fongolimbi lañ juree li ñu war a am ñi ngi koy am ci defal seen askan donc c'est dans ce sens là que lan taxawee ne nan changé tuddee suñu bopp partenariat pour le développement de l' enfant et de la famille mu nekk PDF donc nous sommes une ONG reconnue par l' parce que nous avons reçu nos nos récépissés ay lépp loo xam ne que ONG war na ko am actuellement fii may wax yow am na ko mu mel ni dina gën a yaatu parce que da ngeen di tudd enfant ak famille par rapport ak ministère de la famille en charge de la famille euh, naka ngeen fa yéene taxawee ak ñoom. ñoom ñëpp d' accord ak nous allons, signer des conventions pour chaque ministère. Vous avez vu qu'on travaille avec, euh, avec l'IF, avec l'IA. On travaille avec, euh, euh, pour le, secteur de l'éducation, bah, une organisation. Le secteur de la famille, de l'enfant, nous, il faut faire une base. Donc, nous sommes forcément appelés à travailler avec de la femme, de la Parce que on a parlé de femme, on a parlé de famille, on a parlé d'enfants. Forcément, on va travailler avec ce, ministère. Également, d'autres ministères, parce que nous sommes une organisation transversale. Il faut que les convention comme quoi merci beaucoup.